coalition bi nga xam ne metre ba ma Faye ma koy jiite jamono bii ne du bàyyi li mu ŋànk namm teefu gaawu Boubacar Alba Ndoye bi ca Rufisque Est li ñu bëgg mooy jox Tëngéej xar kanam ba mu yelloo di dëkk boo xam ne jamono bii dañu ko xocc la avocat bi xamle. dañ na leen Tëngéej suñu jógul ñun defaraat suñu dëkk dëkk bi dafay dee dafay nekk une cité dortoir pourquoi autour à bi dina rey dëkk bi jam ñaajo dina rey dëkk bi euh, TER bi bu ñëwee dina rey dëkk bi waaye corniche bi jaar fële jaari côté euh, Kër Massar jaar si ginnaaw Tivaouane Peulh dafay rey dëkk bi. ñu fexe ba Tëngéej ñu changé visage am loolu nag du jël ay xaalis di jox ay nit moo koy def da ngay jël budget bi def ko si investissement lëkkaloom bi nga xam ne moo fare ci Médine di dëggal jot na ki nga xam ne moom moo di Alioune Mar ak yeneen maire yi mel ni moom abale ngir ñu liggéey Tëngéej gile. donc yooyu yëpp dañ koy gis mu nekk ñu xalaat ne yoon bi ñu yoon bi nga ni moom la gis ñu dem laaj place boobu mu ne naa ànd ak samay gor ñu jël suñuy doole boole ko bokk ndey bokk baay ekkatindoo ndax il est tellement ancré ici à Rufisque loolu moo tax ñu bëgg ko xëccoob jiite mairie bu Rufisque Est jamono bii nag tàmbali na coalition ànd liggéey ci dëgg samp nag seenam ndënd fa seenee dox ci gardu maire bi fi nekkoon ngir fexe nu mu leen abale